todo não. Eu digo que eu vivo igual. ba tey ci seen scandale di jour kii di Amadou Ba ginnaaw les élections sénégalais yi la plupart d'entre eux surtout ñi nga xamante ne ñoom ñoo bokk camp naan dafa war a génn Benno Bokk Yaakaar dafa génn APR dafa war a génn APR Amadou Ba nag euh, tenir na discours jàpp nañ ñi def ber na parti boppam waaye ginnaaw bi ñu gëstoo ñoom nee nañ. ginnaaw bi ñu gëstoo d'après les informations yi nga xamante ne déglu nañ ko ce matin fële ca RTFM man nee naa li ma dégg mooy que euh, defagul benn parti ndax parti bi nga xamante ne RSE lañ ko tuddee nee na parti boobu amul ñu déglu ci Amadou Ba mbooloo bi nga xamante ne doon nañ ko déglu démb kàddu yi mu yëkkati. di leen Ba man moom jàpp naa ne man man moom damaa part personnel Amadou Ba xaw ma dem nga xaw ma demoo wóoruma mais dangaa war a dem boo demee nag di nga wétte ndax am na ñu la toppoon ma kee tax kon boo demee ñoom dañuy daal di téye seen bopp waaye nag demalal sa bopp ndax li nga dund ca élection yii bu fekkee ni dëgg la je précise bien bu fekkee ni dëgg la lañ ciy wax yépp lu am la Amadou Ba dama sa yoon amoo amoo place benn bokk parce que yéenewuñ la te nit boo nekkee fu ñu la yéenewul nag dangay xam sa bopp te Amadou Ba c'est un homme digne responsable kon nag xam nga état xam nga mbir yi maanaam secret yëpp xam nga ko mën nga dem defi sa parti bopp xaar les élections yii di ñëw nga waajal sa bopp nga am sa benn ba ñaari député xaar élection présidentielle 2029 bu ñu yàlla mayee tal ak fekki amul leneen demal ak sa bopp demal ak sa bopp amul leneen kay. que Dieu divine, voit, me tient à